def na fukki weer ak ñeent ci ginnaaw dañoo dajee woon ak producteurs yi nekk ci zone des Niayes bi ñu tawatal ñu seeni ay jafe-jafe yoo xam ne boo ko doon tënk bokk na ci problème mu mën a am accès ci ay matériel agricole ci ay intrants agricoles yu doy mais également ci transformer gannaaw bu ñu bayee ba noppi bokk na ci aussi naka lañuy def ba jaay ndaxte lu ci ëpp lu ñu bay dafay mujj yàqu ci seen loxo ndax amuñu ay unité yu chambre froide maanaam yu ñu ko mën a denc te marché bi foofu aussi prix bi dafay xaw wàcc lool du xaw sax mais dafay wàcc lool de sorte que suñu jaay daanaka dañuy perte maanaam mel na ni dañuy bay waaye à la fin de l'exercice ci ay difficultés yu métti ci la ñuy nekk léegi nag ñu ne loolu lan moo ko mën a saafaraal ñu ne jàpp nañu ne coopérative agricole de suñ ci jubloo dina mën a régler yooyu ndaxte loolooy métier am loolooy liggéeyam loolooy mission ci biir loolu ñu sas ñu nañu liggéey leen ci ngeen dimbale ñu problème boobu mën a saafaraw ca la ñu taxawaloon benn comité de pilotage bu regroupé ay baykat maanaam fukki représentant ak ña juróom-ñeenti représentant wu baykat ci zone des Niayes bi maanaam ci ñetti zones yi mais ñu toftal ci également ñeenti ñeenti agent wu ANCAR yoo xamante ni ñoom ñoo leen di accompagner mu nekk fukk ak ñaar au total ñett autant pour moi mu nekk fukk ak ñaar au total ñu liggéey lu mat juróom-ñeenti weer ci li nga xam ne moom lañ jàpp ne moom lañ war a teg kom jéego ngir am ndam ci lu nu mel liggéey boobu nag moo pare tey ñu war a jublu ci partager ko ak ñi nga xam ne ñoo yebaloon comité boobu gannaaw loolu ci biir liggéey boobu bokk na ci ñaata coopérative lañ war a taxawal ci zone des Niayes ndaxte li ko dalee Tëngéej la ba na ngay yeggee Ndar ñaata moo war a nekk cotisation annuelle yi nga xam ne moom la ñu fixé ñaata moo war a nekk part sociale yi mais ñaata également moo war a nekk kan kan ak kan moo war a nekk membre ci biir coopérative yooyu coopérative yi aussi naka lay doxee yooyu la ñu am yéene fas yéene tey présenté ko ñi nga xam ne ñoo ñu mandaté woon ñu valider ko ensemble nga xam ne suba bu ñu fi jógee ko rek fa ñu jëm directement mooy taxawal coopérative yooyu gannaaw bu ñu leen taxawalee nag dugg ci li nga xam ne mooy jëmmal leen dooleel leen kattanal leen ba ëllëg ñu mën a doon coopérative yu mucc ayib nga xam ne dañuy toog di leen comparer ak yi ñu gis Europe nga xam dane lépp luy commercialisation la ko dalee production ba ci commercialisation daanaka ca réew yooyu ñoo cay lëkkaloog état di ko matale kon na nga xam ne na la ko seen aw askan bëggee loolu daal moo doon solo ci ndajem tey mi doon ndaje mu am solo boo xam ne dañuy ñëw waxtaanee ci li nga xam ne moom lañ sasoon aw groupe groupe booba liggéey ci lu mat juróom-ñeenti weer ñu war a ñëw nag tey délibérer amender améliorer au besoin voire même critiquer la nga xam ne moom la groupe booba liggéey yoon décidé ci ensemble ci ñaari fan yi ci fan la ñu jëm naka lañ koy defee ñan lañ ci àndal ak naka lañ koy doxalee. waa ñun CRADEX euh, zone des Niayes lañ yamandeegum ci suñu ay action waaye ci ànd bi dañ ci lëkkaloo ak benn programme état bu ñu tuddee PACAW nga xam ne ministère du commerce moo koy piloté. pakaaw googu nag moom euh, euh, euh, mission moo doon créer ay coopérative agricole ñun gannaaw ba ñu producteurs yi sasee pour ñu liggéey ci taxawal ay coopérative agricole yàlla dafa def programme boobu ñu xamee ak ñoom ñu waxtoog waxtaan gis ne li gën mooy gannaaw benn cible bi la am même objectif bi la ñu am nañu àndandoo boole suñu doole boole suñu xalaat boole suñu moyen te noonu it la demee di leen sant ci sincérité bi ci collaboration bi mais aussi ak rigueur bi donc loolu euh, ñun ci zone de Niayes la ñamagum waaye ñoom seeni pro programme boobu nga xam ne moom la ministère am muy pakaaw dépassé na zone des Niayes ndaxte ci juróom-ñeenti région wu Sénégal moom lay ëmb gannaaw zone des Niayes ñeenti région yi ko seq muy Dakar Saint Thiès Louga ak euh, Saint-Louis ñoom bokk na ci fuuta fuuta ga nag la ko dalee région de Matam nga yokk ko ci mais ñëwaat également ci ñetti région naturel ñetti région yi nekk ci Casamance naturelle muy Kolda Ziguinchor ak Sédhiou ak région de Fatick moom moo ko def juróom-ñeenti région yoo xam ne pakaaw moom ñun gannaaw bu ñu pareek ñoom ñaay ñoom dañuy continuer euh, yëngatu ci li ñuy def ci ñaay bi dañ koy def ci ñeent juróom yeneen euh, juróom juróomi région yooyu nga xam ne ñoo nekkul ci zone des Niayes kuréel gi nga xam ne gi moom mooy dajee fii euh, de liggéey dafa di kuréel goo xam ne gi daf ko nekk ci euh, lëg dafa toll ci benn état bu liggéey boo xam ne bii e ñun pakaaw nga xam ni dañuy di un programme du ministère du commerce financé bien sur par l'Union européenne et exécuté par le centre du commerce euh, commerce international qui est à Genève donc liggéey la boo xam ne bii dañ ci fas yéene euh, ànd ak ñi nga xam ne ñoo ne ci salle bi tey jii mu di les acteurs producteurs transformateurs de la zone de Niayes et particulièrement de la zone sud pour mettre en place li ñuy tuddee euh, pour euh, taxawal li ñuy tuddee société coopérative. société coopérative nag dafa di jumtuwaay boo xam ne bii acte uniforme OHADA moom moo ko euh, taxawal ngir sunu réew yi nga xam ni ay état partie la ñu maanaam dañoo bokk ci kuréel boobu ñuy wax OHADA man koo taxawal mën na jàppale sunuy producteur sunuy acteur et ñu mën koo taxawal donc ñun bi waxtu ñu war a tàmbalee liggéeyu pakaawo fii ci Sénégal dañoo daje yàlla dafa def ñu daje ci euh, waar wi ak benn kuréel bu tudd CRADESC kuréel boobu ñu fekk ko muy liggéey ànd ak ñi nga xam ne yi ñooy acteur béykat yi nekk fii ci dans la zone de Niayes pour taxawal ay kuréel yoo xam ne yii ñoom ay coopérative la ñuy doon kon nag mu nekk euh, sotteeg def ci ñu ne kon nag ñun ñi comme ci loolu la ñuy taxaw fas yéene ànd ak euh, ñi nga xam ni ñooy acteurs yi sur le terrain pour ñi taxawal ay société coopérative nañu ànd ak ñoom ñoom nag ñoom ñoo sumb liggéey bi di waxtaan ak béykat yi di waxtaan ak acteurs yi pour que ñu mën a taxawal ay société coopérative ndax société coopérative dafa di loo xam ne lii et kenn du ko jël sos euh, taxawal ko ñi koy jëriñoo processus la boo xam ne bii ñi koy jëriñoo maanaam acteurs yi ne sur le terrain ñoom ñoo war a waxtaan ba juboo ni gis nañu ni euh, xam nañu njëriñu coopérative gis nañu njëriñu coopérative ñu ànd na dañuy booloo taxawal société coopérative ñun ñu fekk ci leen ci moo tax ñun ñu teew ci ndaje bi et pour euh, won ñi nga xam ne ñi ñoo fi dajaloo war a liggéey ci loolu que ñun dañ ci lëkkaloo CRADESC te it ñi ngi ànd ak ñoom di leen déglu ba yàlla bu yàlla defee ba ñuy taxawal seeni i société coopérative ñu fas yéene ànd ak ñoom e di leen taxawu di leen jàppale ba société coopérative yooyu am jëmm ba mën a dox ba man leen jëriñ loolu mooy taxawaayu pakao loolu moo tax tamit eh, ñu teew ci ndaje bi rien que rek pour firndeel acteurs yi ne ñi ngi seen wet parce que leen yéen a accompagner ba lii ñuy sumb mën a sotti ba ñu mën koo jëriñoo. nekk à la base ñoo daje woon benn rencontre à Darou doos bi ñu dajee Darou doos nag la taxoon ñu daje mooy. càmbar jafe-jafe yi nga xam ni acteur yi nekk à la base muy béykat muy sàmmkat muy transformatrice jafe-jafe yi nga xam ne am nañ ko loolu la ñu dajee Daaru Xudoos génn ko bi ñu ko génnee nag dañ ko jébbal CRADEX bi ñu ko jébbale CRADEX nag moom li mu leen wax mooy yaakaar naa ne day loolu baax na mais li ñu sañoon ñu yaatal ko dans toute la zone day ñaay ci loolu la ñu organiser beneen rencontre à Thiès oo acteurs yi nga xam ni xam nañ leen ci zone day ñaay ñu def yëkkat muy organisation paysanne bi ñu dajee nag li ñu defoon à Darou Khoudoss la ñu gën a yaatal fépp foo xam ne fi mooy leen zone day ñaay li ko commencé Rufisque ba ba Saint-Louis ñu xool jafe-jafe yi nga xam ne organisation paysanne yi baykat yi am nañ ko sàmmkat yi nappkat yi am nañ ko ñu génn ko biñ ko génnee nag dañoo jën ay recommandation teg yaakaar nañ ne de lii mooy saafara yi lii mooy saafara yi lii mooy saafara yi biñ ko defee nag am na si ñaar yoo xam ne ñoo gën a fës muy taxawal ay coopérative ak benn cadre de concertation coopérative mooy bras politique mooy bras économique bi cadre bi mooy bras politique bi li tax ñu def ko nag mooy dañoo seetlu ni organisation paysanne yi nekk zone des Niayes bari na macha allah kenn ku nekk yaa ngay jëf fa nga nekk mais dafa am lu des loo xam ni benn organisation man mënalu ko boppam il faut ñu boole suñuy doole soog a mën a taxawal yenn yi loolu nag moo tax ñu créer foofa si Thiès benn comité d' boo xam ne dans la zone des Niayes la ñu tànn fi neuf personnes boole ak quatre agent ANCAR yi fi nekk muy treize personnes loolu ñooy comité d'initiative bi léegi nag si la ñu ni ah liggéey loolu de li ñu sante liggéey ko dans la zone des Niayes du yomb si la def benn découpage rek boo xam ne dans la zone des Niayes li commencé Rufisque ba Notto mooy zone sud boo passé Notto ba Kara ngay dem Passe booy mooy zone centre li ko commencé Lompul ba mooy zone nord zone bu su nekk rek dañ fa taxawal benn sous-copile boo xam ne bii liggéey bi moo si dimbali copile bi liggéey bi nag weesuwul maanaam recenser toutes les organisations paysannes bu su nekk nag nga def benn diagnostic bu xóoti xoot xool ndax lii ñu bëgg a taxawal méngoo na ak la ñu bëgg a def wala déet après la léegi nag euh, la xool nag vraiment acte OHADA acte uniforme OHADA bi nga xam ne suñu consultants yi ñu ngi ànd ak ñun ñu expliquer ñu bu baax a baax act boobu lan moo si ne nag si la ñuy indi ñun suñu proposition ni acte bi day li mu wax nii lii mooy si suñu xalaat buñ ko defee ba pare nag dañ koy joxaat consultant yi consultant yi jàmbar ko lu si méngoo acte acte ADA bi ñu ne ah lii de méngoo na lu si méngoo ñu changé ko kon décision yi fi jël yëpp yëpp si baykat yi la jógee pour wane ni loolu yittey baykat yi la ñu ànd seeg pakaaw aussi pakaaw bi mu ñëwee aussi xam ni comité bi mu ngi fi comité pilotage bi mu ngi fi mu ne ah mu de du ma dem di la leneen kon naa ànd ak yéen si liggéey bi ñu def donc en loolu mooy liggéey bi nga xam ni comité bi def na ko muy liggéey boo xam ne bu mu mucc ayib la ndax organisation yi benn fu nekk fa nga nekk yaa nga fay góorgóorlu de mais bi ñu defee diagnostic bi gis nañ ne am na lu ñu manqué lañ ñu nag lañ ñu santoon mooy nañ fexee fexee fexee ba rëq-rëq yi xam ne constaté nañ ko organisation yi daa am loolu mu bañ a am li nga xam ne ay ngëneel la yoo xam ne organisation yi doon nañ ko def muy lu baax loolu ñu yóbbaale ko donc daal daal moo di liggéey bi nga xam ne moo ñu sas ñu fexee fexee fexee ba kenn duñu yëgu ma ñëpp ñëpp yëg ko muy autorités yi nga xam ne ñoo nekk si gox bi muy producteurs yi muy ñii transformer ñëpp daal ku si nekk def nañ la informé nañ la tey ji nag danoo war a ñëwaat tey pour que kuréel yooyu ñu oo leen liggéey bi ñu liggéeyeen ñu wersi leen ko delloo leen liggéey bi ñu joxe si seen xalaat buñ si jógee nii nag la ñuy dem si assemblée générale yi loolu mooy liggéey bi nga xam ne moo